Cham. I am the founder of Pulos African Cuisine and I am here today to tell you what Pulos African Cuisine is all about. The first thing that should come to mind when you hear about Pulos African Cuisine is good quality food. I am a caterer that resides in the Dallas-Fort Worth area and cooking is my passion. The kitchen is an adventurous place for me. Cooking is the thing that I do the absolute best with the least amount of effort. I have this YouTube channel so that I could help people out with what to cook, help them with new recipes or old recipes, or to recreate food, help with quick and easy meals. Sometimes I will have my own African dishes like the Gambians, the Senegambian cuisine, because that's my specialty. And cooking for me is an act of love, because when you're cooking, you give it your all, you cook with your heart. That's what I do. I cook with my heart. I season with love fry with love. Whatever I do in the kitchen, I do it with love. Please feel free to ask me about anything that you guys see me that I'm using that you're interested in. I will be more than happy to help you with a link or a website, help you with where I got it from. So, and please subscribe to my channel, hit the like button, hit the notification button, share my videos, share, share, share. You guys have been so awesome. I've been receiving the love from all over the world. Thank you so much, you guys. Thank you. I really appreciate everybody. Assalamu alaikum sama gaay man la sen harit, sen sope. maa ngi tudd Matar cham. man ma mom pulus African Cuisine tey nak dama ñëw pour waxtaan ak yéen pour wax leen lan la Poulou's African Cuisine day def man dama day def catering maa ngi dëkk si Dallas Fort Worth area bi man nekk ku bugg a tooga tooga dafa yàggaa nekk loo xam ne dama ko bugg a suma xol bi suma xol lay damay mariner ak suma xol su may baxal ndox sa xol laay toogee bu may teg lekka bi xol laay toogee ñi ma xam ñëpp xam nañ naka laa bëggee di joxe lekka di tooga tooga bu neex di ko di ko joxe so moo tax nag léegi moom ma jël yëf yi métier tooga rek jagle ko parce que xam ne loolu la ma yàlla jagleel so soo nag maa ngi ciy sante suñu borom soo gisee nag ma def YouTube channel bi dama yàgg di jàppale sama xarit yi si ay lan lañ war a tooga di lañ jox ay ideas lan lañ war a tooga di lañ jox ay recipes dama bugg a di dama yàgg di bugg di joxe sama ay recipes ak suma mun-mun lu ma xam rek dama ko yàgg dama ko dee bokk ak suma ay am di jàmm yi so léegi ma ne why not create a YouTube page bokk ko àdduna si di si jàppale ay yeneen doomi aadama nga xam ne ñu ñëpp nañ ci njëriñoo so ma ne nag ma def YouTube channel bi pour di help out with recipes ideas of what to cook sometimes dinaa come up with quick and easy recipes because nit ñi duñ daan jot nit ñi saa ñu ngi wàcca rek xamuñ ñu war a togg lan lañ war a defal seen family a quick meal to eat yenn saa yi dinaa def suma togga yi yoo xam ne from Gambia ak Sénégal waaye yëpp dama ko try pour shorten ko up because nit ñi kenn amul time pour toog seetaan vidéo yu gudda so I try my best to do vidéo yoo xam ne is ten minutes or less. sant di leen gërëm yéen ñepp di wax jërë ngeen jëf seen comment yi te ku gis dara lo xam ne bugga nga ko rek laaj ma ci comment yi dina la jappalé wan la faaw mëna amé lan la féké euh, kitchen gadget la wala tools bima amé na la ko mëna na dinaa la jàppale wax la fan laa ko jëndé bu ci am ben problème man da dama fi nekkal ñepp la fi nekkal di la wax jëf subscribe len suma channel bi like len share len suma vidéo yi fo len ko gis nak share len ko share len ko jërë ngeen jëf am len morom